sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. naka la. man Mamadou laa tudd. Mamadou ñu ñëw fekk la file si euh, mbaaw ci mbir yu doy waar yi nga xamante ni moom moo fi daal di xew mën nga ñu ñëwalaat ci ay leeral ci mbir yi rek naka la fi demee. ah mbir yi moom maanaam au départ bi may départ di xëy di liggéey man fi laa leen romb wax ak Duudu mooy kii bâtiment bi tànc noonu tànk bi bi ma waxee moom ba pare ci laa continué ànd ak sama yeneen ñaari booy yóbbu leen jaxaay chantier. bi ma demee placé ñooñu ba wàññeeku nag di ñëw bi toll ci osan bi laa dégg région régime ma ne loolu xanaa giri la wala bâtiment buy wàcc yàlla dogal ma ñëw ba fii nii rek ci laa xool ni gis bâtiment bi ma ne non lii bâtiment wu ñoom duur bi la ci laa ne 84 bi receveur bi demandel ma ma wàcc mu demandeel ma ma wàcc bi ma ñëwee laa fekk magam magam góor bi magam bi waaw mi ngi ci toog noonu di xalangu ci suuf ak yooyu noonu di yuuxu nan duudu mi ngi ne tànk baa ngi nële ma ne ko non non duudu deewut man ma wiiri si ginnaaw bâtiment bi jàkkaarloog moom gis ne moom instant bi ni tànk bi moo ko tànc mais yaram baa ngi si biir bâtiment bi dàll bee ngi feeñ ci biti yaram baa ngi si biir bâtiment bi ma def derrière si ginnaaw bâtiment bi ba mu yëkkati bopp ma gis ko boobu noppaloogul mais tàngoor beeg yàggaay bi xam naa moo tax mu noppalu sànq noonu ay une heure bi maa ngi dégg di yaayam woo nañu mais nanguwuñ ko expliquer dara parce que vacances la ñëw. Ah, moom Doudou la ñëw. vacances la ñëw Casamance la jógee. ñëw ñëw fa. doom dafa di liggéey pour préparer ouvertir école am mu nara a dee fii nii ci Ndakaaru Njaay ci bâtiment yu ñàkk fayda yi nga xamante ni seen liggéey baaxul ingénieur bi defar bâtiment si presse yi kooku lañ war a xool fu mu ne ñu porté ko plainte mu ñëw parce que bâtiment CIPRES yi li muy rëy rëy di bari bari lépp même qualité fer moo ci nekk même plan bi moo ci ne te c'est pas logique fer de huit teewul bâtiment. bâtiment bi ñaata nit ñoo fa nekkoon si biir. ci ñu doon liggéey cinq personnes lañ xaw ma si sept. ah kon dëkkuñu fi mais dañ doon liggéey. di liggéey mais am na ñoo xam ne dañ fi doon fanaan am ñoo xam ne gardien lañ fi ku mel ni Babacar gardien wu cité bi la. moom la case escalier bi tëj ci kaw instant bi mi ngi doon wax ak ñun téléphone à partir de midi ba jusqu'à une heure instant bii nii mënatuñoo dégg moom téléphone. midi ban heure la am kon. 11h. ba léegi kenn génnul ci biir mënuñoo sauver mbindeef ci biir. te woo intervention mu ñëw duudu moom Casamance la jóge ñaata at la am. xaw ma nag ñaata at la am mais xam naa ne xale la boo dee calculer ay atam ay 18 ans 19 ans lay am. dañ leen confirmer ñàkk bakkanam. waaw moom ñàkk na bakkanam parce que police bi moo ma ko wax. moo ne ma duudu ngay wax noonu moom dem na ma ne ko non grand kooku mën da dem mu ne ma dem na insister ci laa xam ne nag li mu wax logique na dem na moom la ñuy préparé nii ñoom pour xool fu ñu ko mën a génnewee nii. parce que tànk kooku rek moo si ñàkk bakkanam bari na ñëpp daanaka boo xoolee dem nañ mel ni Babacar moomu moo doon wax ak ñun téléphone moom la casier escalier bi tëj mënul génn. cinq personnes yëpp moom euh, wóoru leen ndax ñu ngi seen bakkan. ñu ngi seen bakkan man moom wóoru ma mais xam naa ne duudu moom dem na ndax wax nañ ne ma duudu dem na mais ñeneen ñi gars yi dañuy lëre nit ñi ni rek di dalal suñu xel naan ñu ngi wax ak ñoom téléphone mais waxuñoo ak ñoom téléphone mennum Babacar moo doon wax ak ñun téléphone te Babacar bi mi di jotee lañ gëj a déggante ak moom téléphone ba léegi si nii waaw xamuñu lan moo ko jot si biir waaw. sëñ bi maa ngi lay waaw maa ngi lay fay. naka la. tudd. Ibrahima ndax da am mbokk ci bâtiment bi nga xam ne moom moo daanu. waaw sama rakk mu ngi ci waaw. turam nan la. Aliou waaw. mën nga ñu waxal ci mbir yi exactement naka rek la demee. man Malika place laa nekkoon après si lañ ma woo tey suba ñu wax ma ko moom ban ma wooyee sax na ku ma woo Kaolack wax ma ko waaye gëw ma ko woon après sama yaa moom woo wax ma ko après si ñaar rakk yee tamit ñu ne ma dëgg la si Malika ñëw fii waaw mais jaaxal na ma trop daal man daal te dama waar daal. ndax bi nga ñëwee fii amaatoo benn information ci moom booba bâtiment bi léegi. Oh, non non moom wax dëgg nu ma gisee bâtiment nii man nitu bâtiment la mais ci ñoom yaakaar quoi waaw man loolu laa gis fi mu daal aw ci ñoom yaakaar. di ñëw ñoo. mook sama rakk yi ñoo ànd ñoom ñoo fi jiitu sax man après ne woon naa fi mais dama amaat sànca Kaolack ma dem ma ñëwaat barkaat démb maa leen di woo téléphone sax naan leen ni naa fa ñëw war mu demee nii quoi. que man la Alioune Mar monsieur Alioune Mar maire de la commune de Rufisque li fi am nag nekk na njàqare njàqare pour commune de Rufisque njàqare pour waa Cyprès njàqare pour Tëngéej gi yëpp njàqare pour àdduna pour Sénégal gi donc euh, bâtiment bi daanu na euh, loolu matériel la mais am na ñu nekk ci biir nga xam ne seen vie dafa risqué loolu moom moo ñu indil problème donc pour l'instant amuñu benn élément technique benn élément boo xam ne mën na tax ñu def analyse li nga xam ne moom moo wóor moo di bâtiment bi daanu na cinq à six personnes ñu ngi ci suuf ndax am na ñu ci ñàkk seen bakkan ak ñu ci ñàkkagul seen bakkan loolu xamagun ko fii li nga xam ne moo ñu rassuré mooy lépp loo xam ne yor nañ ko ci jumtukaay ci département bi loolu indi nañ ko sapeur pompier mi ngi fi euh, police mi ngi fi gendarmerie mi ngi fi protection civile préfet ak sous préfet ñëpp ñu ngi fi donc loolu moom la ñuy dalale suñu xel jàpp ne képp koo xam ne yàlla tuddul sa bis tey bu soobu yàlla dañ fexe nga génn daf ci am xale boo xam ne nag bu tudd Babacar parce xale boobu dafa ne fa jàmbaare ni mu duggee ci biir jaaxal na ma ndax fii bu musaa nawet ñëpp xam ne da daa fees mais ñun maire ak autorités yi préfet ñoo doon ànd ak Babacar di nekk ci ndox yi pour sauver les populations donc boobu cas yëpp metti na mais kaa boobu aussi kooku mën nañu wax ne dafa nekkoon ci liggéey ba loolu fekk ko ci il est euh, euh, dafa accidenté arme à la main comme yàlla na ko yàlla sawe mais mi ngi wax ak nit ñi ba léegi donc li ñuy def waa li ñuy def dañuy garder espoir imaam ñëw na ñaan na mhm. ñu garder espoir ku mën a ñaan mu ñaan bu ñu demee nag ba lépp jeex ba ñu am bilan bi yëpp délégué de quartier ak commune bi na def conférence de presse pour wax lëkk lan moo ko indi mhm. ndax ko doon tabaxaat la ndax ko doon tabax wala bâtiment ci boppam moom moo màggetoon mhm. donc vraiment loolu lañ ci mën a wax. bi waaw man bi ma koy yëg boobu romb naa fi ñii. mais semble-t-il boru dix heures et demie yooyu dix heures di waa euh, dix heures dix heures et yooyu la affaire bi am à onze heures ñun lañ ñu alerté ñu ñëw fi léegi jot nañ am kenn koo xam ne jot nañ ko ci génne ci biir non non ci loolu la ñu nekk ñu ñaan yàlla loolu am xam nga ne bâtiment bu tel ni ni ko gisee pare nga filmer ko pour dégager ko génne nit ñi vraiment ça demande du temps dafa am ku doon tabaxaat ci biir que c'est pas le bâtiment en quelque sorte mais dafa am koo xam da doon tabaxaat te nee nañu les riverains disent que ne jël na fi plusieurs camions de sable yoo xam ne tibb nañ ko yóbbu ko peut-être que c'est dû à ça loolu nag mooy nekk ci ñun suñuy conclusion mais je sais que tout le monde xam ne ne am na liggéey bu ñu fa doon liggéeyaat mais quand suñu paree nañ xam ba xam loolu mooy cause bi parce que aussi bâtiment boo koy tabax am na yoon boo koy defaraat sax am na yoon boo koy yokk am na yoon donc li ñuy ñaan daal mooy yàlla na yàlla def rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir nekk suñuy mbokk nekk suñu lépp yàlla na leen yàlla génne yéen tamit ñu ngi leen di gërëmal ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax je sais que ne yéen tey reportage bi du neex trop ndax seen xol neexul mais yéenay tax tamit àdduna bi yëpp partager douleur bi nga xam ne ñun am nañ ko waa Rufisque Ouest waa Sipres am nañ ko donc ñu ngi leen di jox beneen dig daje balaa yàgg ñu toogaat ñu xool lan moo ko indi incha allah